mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi koy jërë ngeen jëf ci déglu bi ñuy déglu ak seetaan bi ci sunu site bi ni ñuy wax sunu acte point com ñuy ànd ak yéen ci naafale weeru koor wi ci téere sëriñ son yi bu Mbàkke tey ñu ñëw ci guddik juróom-ñaareelu guddi ci weeru koor wi juróom-ñaareelu guddi gi juróom benn rakk la rakk bu ci nekk fatiha leen ciy jàng ak xul yaa al ak ak lixlaas lu ci nekk ñu jàng ko juróom-ñaari yoon ñu baamtuwaat leen ko juróom-ñaareelu guddi bi juróom benn rakka lay doon rakka bu ci nekk faatiya lañ ci jàng ak kaafiroon ak lixsaal lu ci nekk juróom ñaar yoon lañ koy jàng mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm joxaat leen daje ci yeneen i guddi ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaaman maadudaat yaa xayra dayfin ata bil bishri wa sahlan wa tarhiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qiraat taahaati wa sadadi